Tigo bu xasee ma doo mu daanu moom mosul doo kenn mu daanu. Habib baa ngi wax ak ñoo mbokk yi li làmb nangu ak li làmb bañ Boy Dakar moo ñu woon ginnaaw mbokk yi Habib baa nga jox avertissement moom Boy Dakar nee na fa lu mu sotti Tigo Habib baa ngeen wax li làmb nangu ak li làmb bañ Habib baa ngi wax ak ñaari mbër Adama grand combat baa ngi noonu eh Adama ba fàtte woo waalo bi grand combat baa ngi noonu abit baa ngi wax ak ñoom moo ngi laaj ba production woo ñu fii tey premier mars il est 20h19 Boy Dakar Tigo Boy Dakar cokkaas na léegi Boy Dakar Tigo laay leen laa ñoo fi arène nationale Djibson production moo ñu fi woo premier mars les vingt heures arbitre bi sifflé na vingt heures vingt Boy Dakar moo ñu woon ginnaaw tent bopp bi Tigo xaritu yaayam lañ jàkkaarloo moo takk fas bi ci bopp bi Boy Dakar Tigo Tigo moo ngi demee wet Tigo ngi demee wet Boy Dakar ngi ne teg topp ko moom Boy Dakar teg pied droite Tigo xaritu yaayam teg pied gauche ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Boy Dakar Tigo Boy ragal naa ni combat bi du yàgg ragal naa ni combat bi du yàgg. Boy Dakar Tigo Boy noo gisee làmb ji. waaw Ousseyn maa ngi lay nuyu ah di bëggee ñi nga ñoom ñoo ñuy seetaan suñu wasaare ah ñaari non ñaari combat yi boo gisee kii di Boy Dakar. bërekat la dafa mën a bëre mais Tigo xaritu yaayam bëreem dafa assuré bëre bu assuré la yor mais kii moom macha allah. booy Dakar Maodo lu leer koy tax a def. waaw parce que booy Dakar instant bi neuf combats la def neuf victoire amagul defet te bii mooy premier grand combat am kii Tigo xaritu yaayam su ma juumul bi mooy quatrième grand combat am kon nga xam ni expérience bi Tigo xaritu yaayam ci la nekk mais booy Dakar xale bu mën bëre la nañ ko bàyyi xel. kontaan naa ci yow Fatima. kon lan naa ci moom moom moom moom Fatima mooy borom info réew mi booy Dakar ci xaytu yaayam ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar booy Dakar ci koo dégg nga Fatima ni mu ko waxee ne expérience bi ci Tigo la nekk Tigo booy Dakar moo taxit moom Tigo moo ngi ne tekk di ko xool booy Dakar gi jàkkaarloog moom ñoo ngi lewaatoo mbokk yi ñoom ñaar ah làmb ragal naa bu jàppantee mu jeex ah dagg na lewtoo bi Tigo dagg na lewtoo bi Tigo Boy Dakar Tigo ba koy dem gauche ba mu neex ko mu dem droite Tigo Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo loxo jógagul congo amagul tapalantooguñu làmb jaa ngi noonu maa ngi nuyu sama sama naataango bi sama waa ji siyaar naa la moo ngi foofu ca baat ñi moom bàyyi ji la abit bi àtte na combat bi nee leen ñëw ci diggi géew bi Boy Dakar Tigo Boy Dakar abit baa ngi wax ñoom nee na moo ngi wax ñoom naa leen bërewu leen bëre leen làmb jaa ngi noonu abit baa laaj ay jugeem laaj na ñaari mbër sifle na Boy Dakar ah Boy Dakar door na léegi waaye dalul Boy Dakar Tigo Tigo boo xool dafa mel ni ku ko libéré combat bi Tigo na léegi Tigo cokkaas na léegi ñu fàttali mbokk yi Tigo moo ci feet bi sama njaago noonu Tigo xaytu yaayam boo xool taxawaayu ñoom ñaar xaw nañu tolloo. boo doon rek bu ñu sumee ko nga xam ne ñii liggéey nañ tey booy Dakar Tigo xaritu yaayam ah Tigo cokkaas na léegi waaye dalul Tigo cokkaas na léegi moo ngi demee ndeyjoor moom Tigo booy Dakar ne tekk topp ko booy Dakar nag boo xoolee dafa dafa lisu ci combat bi moo ngi taxaw di ko xool jàkkaarloog moom tànk bu mu teggi moom Tigo xaritu yaayam booy Dakar teg fa tànkam booy Dakar Tigo <laughs> ragal naa ne bu coow nga amee. ragal naa ne bu coow amee ci làmb ji Boy Dakar Tigo Tigo daa mel ni ku bëgg a dem Tigo daa mel ni ku bëgg dem cokkaas na léegi moom Tigo Tigo booy Dakar Tigo demee na càmmoñ de lootoo ba mu neexoo mu dagg lootoo bi moom Tigo Tigo Boy Dakar Tigo Boy Dakar Tigo expérience la koy jaay boo xoolee làmb ji mbokk yi Boy Dakar concentré woon ci làmb ji mais da koy Tigo da koy bàyyi ba mu léwtoo samp tànkam Tigo dagg léwtoo bi demee gauche wala mu demee droite pour déconcentré wu ko doo ko andiwaat ci làmb ji moom Tigo xaytu yaayam Tigo Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar Arène Nationale Production woo ñu fii tey abi bi atte na baa leen jox avertissement baa du leen jox avertissement jox na ko avertissement moom Boy Dakar oh, yaay bañ nañ jox na avertissement Tigo bëre wuñ baa ngi laaj ay na ñaari mbër abi bi na Tigo lu muy def nii noo ah, nom du Père et du Fils et du esprit loolu la Tigo def léegi Tigo loolu la def léegi Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar Tigo Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar jege yaantoo nañu jege yaantoo nañu ragal naa dinañ jàppante ñoom ñaar Tigo ngi lewtoo Tigo Boy Dakar eh Boy Dakar cokkaas na léegi. ko remise ko jokkaat na léegi moom Boy Dakar moo ngi koy accéléré Boy Dakar ngi accéléré Tigo sàmbal <laughs> ma sa tànk yi sàmbal ma sa tànk naa ko sa baadu ko faaxat baadu ko faaxat Tigo lu muy def nii Boy Dakar Tigo eh, xale yaa ngi bëre la laa <laughs> Tigo daw na ko Boy Dakar daw na jël Tigo Tigo rasu rasu rasu bu amul fenn daw faax ko jàppante nañ Tigo wolu sew ci suuf Tigo ngi dugal ay boni Socas Tigo ngi noonu Tigo booy Dakar baa ko faax moom Tigo baa du ko faax booy xool mbokk yi Tigo jàppul booy Dakar ngi rokko ci suuf ku nekk sa benn loxo am na ngemb Tigo am na benn loxo ci ngemb booy Dakar am benn loxo ci ngemb ñoo ngi jàppante ñoom ñaar su li tàng na fi bu ma gisee lii sama xel yi dem ci Pape Mor dafa na ko laa génnee lay la laa ey lu ne am na fa stade Iba Mar ne am na fa jàppante nañ bàyyante waat Boy Dakar Tigo xaytu yaayam eh, lamb ji neex na Boy Dakar Tigo lamb ji mënu yomb ay xale lañ abid atana Ardo Boy Dakar dem na Ardo Boy Dakar dem na Ardo demal Boy Dakar bul bañ demal jàmbaar yàggee na loolu moom Boy Dakar sànq waxoon na nee na ma Tigo musul doo kenn mu daan te yóbbu naa nit ardo booy Dakar a ngi noonu Boy Dakar moo ñëwoon ginnaaw Tigo lañ jàkkaar lool Adama lamb ji neex na Djibson production moo fi woo tey ñoo ngi fii ci arène nationale ci Tigo xaytu yaayam mitan li lamb nangu ak li lamb bañ abi baa ngi laaj ay jugeum xoolal ma Tigo la muy def au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit à moi-même <laughs> Tigo woo ngoog Tigo xaaju yaayam ak Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo Tigo booy xool moo ñëwoon ginnaaw léegi moo xaw a ñuul Boy Dakar moom lañ jàkkaar moo mel ne ku tent bopp bi moom Tigo moom Boy Dakar Tigo cokaas na léegi waaye dalul Tigo Boy Dakar Boy Dakar sëqatal na ko léegi Boy Dakar Tigo Boy Dakar Tigo Gibson production moo fi woo tey Boy Dakar Tigo grand combat baa yi noonu bëri na 10 minutes ba mi-temps il est 20 heures 42 21 heures moins Boy Dakar Tigo Boy Dakar Tigo ñoo ngi liwaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar sànni na léegi waaye dalul. waaw ah, Tigo dóor na léegi eh Boy Dakar jël ba fam ko jàpp sori na moom Boy Dakar baadu eh Tigo Tigo li nga la lii la war ko gàtt appui daan na ko daan ko Boy Dakar daan na Boy Dakar daan na Tigo Boy Dakar daan na Tigo Boy de lu am. maa ne Chine am na. Boy Dakar daan na Tigo. daan ko. jël bu lay xel ko. Boy Dakar daan na Tigo. Boy Dakar daan na Tigo. Boy Dakar daan na